juróom ñaar fukk ak juróom ñett ndekkite li ak dund gi asalaamaaleykum mbokk yi noo déglu ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission bi ñuy wax yoonu njub fi nu toll ci sunu gëstu ci linjil bu sell bi gis nanu ni almasi bi yeesu amee tur yu bare ngir nu gën a xam ki mu doon déggoon nanu ba noppi ni ñu ko tudde kàddu gi nekkoon ak yàlla ca njalben ga doomu yàlla aji kawe ji doomu nit ki mbotem yàlla mi musalkat bi ñam wi joxe dund gi leeru àddina si boroom ndam li buntu gett gi ak sàmm bu baax bi tey nag dinanu gisaat yeneen ñaari turi yeesu ñoo di ndekkite li ak dund gi ba fi nu toll gisoon nanu ni yeesu doon wëre réewum yawut yi di jàngale di def lu baax ak di faj ñi feebar ak ñi làggi ak ñi gumba ak ñi rab jàpp ba tax mbooloo mu bari topp ko waaye boroom diine yi ñuy woowee farisiyen ya dañu añaane woon yeesu lool ndaxte àttanuñu xel mi muy waxe te mënuñu weddi firnde yi muy def tey nag danu fas yéene jëm kanam ci linjiil ba gis ni yeesu defewoon woon jeneen jaloore ngir ti ndamam li mu am ci yàlla ngir nit ñi gëm ko nu ngi jàng ci linjiilu yowaana sar fukk ak benn mbind mi nee amoon na benn waay bu woppoon ñu koy wax lasaar ma nga dëkkoon betani moom ak maryaama ak màrt mi mu bokkaloon ndey ak baay maryaama mooy jigéen ji sotti ji laj koloñ ci tànki boroom bi fompe ko kawaram moom la càmmiñam lasaar woppoon ñaari jigéeni lasaar yónnee ca yeesu ne boroom bi sa xarit wopp na bi yeesu déggee xabaar boobu mu ne lasaar de woppam jooju du ko mujje waaye day wone ndamu yàlla tey màggal doomu yàlla ji yeesu soppoon na màrt ak mari ak lasaar bu mu yëgee nag ne lasaar wopp na mu toogaat yeneen ñaari fan ca béréb ba mu nekkoon yeesu xamoon na ne lasaar dina dee wante yeesu dafa façon yéene jëfandikoo deewuk lasaar ngir wone kàttanuk yàlla gi dëkk ci moom ngir nit ñi xam ne ci kaw la jóge gannaaw ba mu toogee ñaari fan ca bërëb ba mu nekkoon nag yéesu waxoon na fukki taalibe ya ak ñaar neleen nanu dellu yude taaliba ya tontu ko kilifa gi yàggul dara waa yude doon nañu la wuta rey ak xeer nga di fa dellu yeesu ne leen xanaa du bëccëg fukki waxtook ñaar la sunu xarit lasaar nelaw na waaye maa ngi dem yee ko taaliba ya tontu ko ne borom bi bu dee nelaw kay kon dina wér yeesu dafa bëggoon a wax ne lasaar dee waaye talibe yi dañoo xalaatoon ne mbiri nelaw rekk lay wax ci kaw loolu yeesu wax ci lu leer ne lazar dee na bég naa ngir yéen ndax li ma fa nekkul ngir seen ngëm gën a dëgër waaye nanu ko seeti bi yeesu agsee mu fekk ne bi ñu dencee lazar ak léegi mat na ñeenti fan betaani ma nga woon ca wetu yerusalem diggante bi matul woon sax ñetti kilomètre yawut yu bari ñëwoon nañu kër marta ak mari ngir defal leen ci seen deewuk càmmiñ bi yeesu ñëwee mart yëg ko dem di dajeek moom fekk booba mariyaama ma nga toog ca kër ga mart na yéesu borom bi boo fi nekkoon de sama càmmiñ la du dee waaye xam naa ne fii nu tollu sax loo ñaan yàlla mu may la ko yéesu ne ko sa càmmiñ dina dekki mart tontu ko ne xam naa ne dina jóg bésu ndekkitale keroog bés bu mujj ba yeesu ne ko man maay ndekkite li dund gi ku ma gëm boo deewee it dinga dund rax ca dolli kuy dund te gëm doo dee ndax gëm nga loolu mu tontu ko ne waaw boroom bi gëm naa ne yaa di almasi bi di doomu yàlla ji wara ñëw ci àddina bi màrt waxee loolu mu daldi dem woowi maryaama ne ko ci pet kilifa gaa ngi fi mu ngi lay laaj bi maryaama dégg loolu mu di jóg gaawantu dem ca yeesu bi maryaama agsee nag ca yeesu ba gis ko mu daanu ci tànkam ne ko borom bi soo fi nekkoon sama càmmiñ du dee yeesu gis ne mu ngi jooy te yawut yi ànd ak moom itam ñu ngi jooy mu daldi jàq am naqar wu rëy mu ne leen fu ngeen ko denc ñu tontu ko ne kaay gis sang bi yeesu jooy noonu nag yawut ya ne gis ngeen ni mu ko bëgge woon waaye am na ca ñoom ñu doon wax naan moom mi ubbi buti gumbe yi ndax mënul woon a fexe ba lasaar du dee yeesu dellu am naqar wu rëy daldi dem ca bàmmeel ba pax la mu ñu yatt ci doj ube ko xeer yeesu ne dindi leen xeer wi màrt jigéenu ku dee ki ne ko borom bi dina xasaw xunn fii mu nekk ndaxte am na ci bàmmeel bi ñeenti fan yeesu ne ko ndax waxu mala ne boo gëmee dinga gis ndamu yàlla ñu daldi dindi xeer wa yéesu xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay sant naa la ci li nga ma déglu ba noppi xam naa ne doo jóg ci di ma déglu waaye dama koy wax ngir nit ñi ma wër gëm ne yaa ma yónni bi mu waxee loolu yeesu woote ak baat bu dëgër ne lasaar ñëwal ci biti néew bi daldi génn ñu gis càngaay li ñu takke woon tànk yi ak loxo yi ak kaala gi ñu muure woon kanam gi yeesu ne leen tekki leen ko bàyyi ko mu dem du fii lañu yem waaye bala nuy àggale neete bu doy waar bii dina baax lool sunu mënee xalaat tuuti ci kéemaan gi yéesu defoon ba àddina sosoo ba tey musu ñoo dégg nit ku mën a jox dund ab néew bu am ñeenti fan ca baameel ba néew boo xam ne mu ngi doon tàmbale yàqu tey xasaw xunn waaye moom la yéesu defoon mbe bi mu dekkalee lasaar ca néew ya dooley dee tewul borom bi yeesu ndaxte moom ci boppam mooy kàddug yàlla di ruu yàlla gi jóge asamaan ni yàlla amee dund gi ci moom ci boppam noonu it la ko almasi bi amee te ni yàlla dekkale néew yi di leen jox dund gi noonu la almasi bi di joxe dund gi ñi mu ko bëgg a jox ndaxte moom ci boppam mooy aji dund ci looloo taxoon bi yeesu woowee lasaar mu ñëw ci biti néew bi daal di dundaat jóg génn bàmmeel ba looloo tax it yeesu mënoon wax jenn jigéenu lasaar ne ko man maay ndekkiteli maay dund gi kuma gëm boo deewee it dinga dundaat léegi nag nanu àggale nettali bi ngir xam li yawut ya def gannaaw ba ñu seede ni yeesu dekkale lasaar ca bàmmeel ba mi nee na yawut yu bare ca ña ñëwoon këri maryaama te gis li yeesu defoon daldi koy gëm waaye amoon na it ñu demoon ca farisiyen ya nettali leen la yeesu defoon farisiyen ya ak euh, sëriñ su mag sa woo kuréelu àttekat ya ne nit ki kat kéemaan yi muy defa ngi bëgg a bare lu nuy def nag ndaxte sunu ko bàyyee mu jàppoon nii ñépp dinañu ko gëm te kilifay rom yi dinañu ñëw daaneel sunu kër yàlla gi tas sunum réew amoon na ca ñoom ku ñuy wax kayif te mu nekkoon sëriñ bu mag ba ca at mooma mu ne leen xamu leen ci mbir mi dara xanaa leen ne kenn nit rekk dee ngir ñépp mooy li ci yéen bu ko defee réew mi du tas loolu kayif waxu ko woon ci sagoom waaye li mu nekkoon sëriñ bu mag ba at mooma moo tax yàlla xiirtal ko mu wax ne yeesu dina dee ngir réew mi du woon rekk ngir xeet woowu waaye ngir itam doomi yàlla yi tasaaroo yépp dajaloo nekk benn keroog la njiiti yawut ya dogu ci rey yéesu taxoon na ba yéesu dootul doxantu ca biir yawut ya noonu mu dem ca gox bu jege màndig ma ca dëkku efrayim foofa nag la toog ak ay taalibeem bésu jégg ba di màggalu yawut ya mu ngi doon jubsi ba ñu bare ca waa àll ba di dem yerusalem bala booba ngir sangu ji set ñu ngi doon wut yeesu tey waxante ca kër yàlla ga naan lu ngeen ci xam ndax dina ñëw ci màggal gi wala déet sëriñ su mag sa ak farisiyen ya daldi santaane ne bu kenn xamee fu mu nekk rekk mu yëgal nu ko ngir nu mën koo jàpp juróom benn fan laata màggalu bésu jégg ba yeesu dem na betani dëkku lasaar mi mu dekkal foofa ñu defaral ko fab reer moo ko doon seddale te lasaar bokkoon na ca gan ña noonu maryaama daldi jël liibaru latkoloñ ju raxul ju ñuy wax nar tey jar lu bare bare mu sotti ko ci tànk yeesu ba noppi fomp ko ak kawaram xetu latkoloñ ji gilli ci kër gi yépp kenn ci taalibe yeesu ya mu yuda iskariyo mi ko nara wor daldi ne lu tax jaayewuñu lajkalañ ji payu atub lëmm jox ko miskin yi waaye bi muy wax loolu xalaatul woon miskin yi ci dëgg-dëgg ndaxte sàcc la woon moo yoroon bayetu xaalis bi te daan ci sàcc waaye yeesu ne ko bàyyi ko jekkoon na mu denc ko ngir bés bu ñu may suul miskin yaa ngi ak yéen bés bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faaw bi ñu yégee ne yeesoo nga fa mbooloom yawut mu bare daldi dem betani yeesu rekk yóbbuwuleen fa woon waaye dañoo bëggoon a gisaale lasaar mi yeesu dekkaloon sëriñ su mag sa dogu ci ne dañuy reyaale lasaar ndaxte moo waral yawut yu bare dëddu leen gëm yeesu fii nag lanu wara yem tey ndaxte sunu jot léegi mu jeex waaye bala nuy tàggoo am na lenn lu nu wara xalaat ndax gis ngeen ni njiiti diine yawut yi tontoo woon ci firnde ji leen yeesu wonoon kenn ci ñoom mënul woon weddi kiimaan gi yeesu def ndaxte ñépp a tegoon seeni bët ci lasaar mi dekki ca néew ya waaye lan la sëriñ su mag sa ak euh, yeneen sëriñ sa defoon ndax tuub nañu seeni bàkkaar te gëm ne yeesu mooy almasi bi di doomu aj kawe ji jóge asamaan tuubuñu de firnde yi yeesu def yépp taxul sëriñ sa ak seeni taalibe réccu te nangu yeesu ni seen boroom ak seen musalkat lan la sëriñ sa def nag dañu gën a bañ yeesu sax te man ko ngir rabat pexem rey ko te it dogu ci reyaale sax lasaar mi yeesu dekkaloon ndaxte moo waral yawut yu bare dëddu sëriñ si topp yeesu cëy ni xoli kilifay diine yooyu dër ki se te sore yàlla amuñu woon benn cofeel ci yàlla mba ci dëgg gi sàggane nañu firnde yu ràññeeku yi yéesu defoon ci seen kanam seen bànneexu bopp ak seen sutura ak xaalis rekk lañu doon xalaat looloo taxoon ñu mànkoo ngir rey yéesu ndaxte dañu ragal ne suñu ko bàyyee mu jàppoo noonu ñépp dinañu leen dëddu topp yéesu lu ngeen xalaat ci kilifay diine yooyu kan moo soloon ci seen xel ñu rey yeesu seytaane mooy ki leen doon jiite ndaxte dafa bañ yàlla ak almaseem seytaane dafa yaakaaroon ne su njiiti yawut yi reyloo yeesu loolu dina nasaxal pexem yàlla ngir musal doomi aadama ci dooleem waaye seytaane xamul woon ni yàlla fasoon yéene jëfandikoo deewuk almasi bi ngir nasaxal jëfi iblis te goreel doomi aadama yi meloon ni ay jaam ndax ragal a te it amoon na leneen li seytaane ak ñi àndoon ak moom ràññeewul woon mooy lii doole dee du mën a téye borom bi yeesu te suuf du mën a lekk néewam ndaxte yeesu mooy ndekkiteli ak dund gi looloo tax yeesu mënoon wax jigéenu lasaar ja ne ko man maay ndekkite li dund gi ku ma gëm boo deewee it dinga dundu ndax gëm nga loolu kon fii lanu leen di tàggoo di leen jox dox daje njàng mi ñëw ndaxte bu sobee borom bi dinanu jëm kanam ci linjiil gis ni yeesu ware cumbur dugg yerusalem ba amal li yonent yàlla yi bindoon bu yàgg ci mbiram bu fekkee ne bëgg nga am téere bu yaatal sa xam-xam ci dundu almasi bi na nga nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li borom bi Yeesu waxoon bi mu naan man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo deewee it di dund ndax gëm nga loolu